franchement man je comprends rien léegi Sénégal doomu biiral bu jóg rek pël Fuuta lay saaga doomu biiral bu jóg rek pël Fuuta lay saaga doomu biiral bu yeew rek pël Fuuta lay saaga pël Fuuta ñooy seen prophète dem la ngeen jàpp nga ñëw jébbalu boo leen boo da ngeen di continuer di saaga pël Fuuta yi seen xol di dagg rek ngeen di gën a di di di di bon di dem rek doo leen musa baax ñun yàlla moñ fi teg te dafa am lu tax mu teg ñu fi pour ngeen ñuy gis la doomu seytaane yi doomu biiral yi nga xam ne xoolal ni ngeen mel rek xoolal yéen ñi ñëpp di saaga pëli xoolal ni ngeen mel la wala seen melokaan xoolal seen melokaan rek boo leen xoolee seen dem leen ngeen taw si setu, ngeen seetuwaat ngeen xool seen melokaan ñu ñooy seen prophète fi, boo leen bëggee am jàmm da ngeen ñuy tarbiyu tarbiyu pëli boo leen dañuy saaga yéen xool ni ngeen alkoore waaye yow xanaa xamoo ni histoire am doom sa jabar wasin nga jënd xar ba pare ray ko sarixe ko ci yéen la jóge parce que sa jabar mën naa am doom nga leer na ni doom ji juróo ko bokk nga ko sa mag wala sa rakk wala sa xarit wala sa dëkkandoo wala sa jarbaat wala sax nga jur doom bu góor ba pare mu wëlbatiku di tëddee sa jabar loolu ci yéen la am yéen gine yéen ngeen ko fàtte kon sénégalais mënoo leen a xas si doomu biiral mënoo mënta nekk sénégalais bu fi juddu ngénte nañ la defal nañ la laax teg ca nag teg ca xar te góob ma de mais yéen seen doom bu juddoo xam nga nu ngeen di def jël xar mi rey ndax assuré yéen ay baay ba ngeen séddale ko ñaareel ba mooy ngeen su ngeen paree togg ceeb teg ci seen la cër yooyu ak seen yéen bu mu yàlla di bind mooy yàlla ci yéen la ko jaare am jëkkër. yow yow di nga dégg daal yi wax ju ñaaw ñëpp a kawan xam ñaaw. ñepp ko mëna dafa am ñuko jom man dama jom ñew wax wax ju ñaaw waye da nga ne sénégalais doomu biiral té ngay diglu mo dig ñu léral ko seppal futa yi da ngay ñaaw wax kenn ku nekk am ba taxa porter sa sa, sa dëkk kenn niwul leen ngeen génn réew bi parce que étranger fepp la am ñun sénégalais yi dañuy dem sa ay dëkk jaamu di liggéey mais ces jours dëkk dañ koy organiser dëkk dañ koy loolu la leen nakari yeen tali bi yeen sa ñek di jaay fess fi del si buntu pharmacie ni ñun sénégalais buñ toggé dañuy dañuy dañuy yëkëti ndax yeen bañ ngeen ko seen bitik bo leen xass bu luyé xam tax ngeen génn sa kër ga ngeen am benen jënd bitik wala ngeen jënd kër ndax yeen seen galat galat ngeen ñime yeen kër góor ndëkk sama sa yeen koy mom ba ngeen ne kenn du wax nga naan sénégalais do doo biral biiral yow marché yow marché ciaré kan moo fay fanaan yeen bu guddé bu tij passé yeen fay fanaan amoo leen néeg góor ñeeg jigéen ñi tëddante limay wax xam ngeen ko marché gambi gé bu guddé ñepp ñibi fanaan ay hôtel ñi fanaan seen kër yeen ngeen fanaan ay marché ak yeen ndëkk ndëkk ndëkk ba mortané gé man hôtel bi ma nekkon ta limay wax am ñu xam dara duma tuddi dëkk ba hôtel bi ma nekkoon barke Seydina Mohamed laa la waatal timis dafa jot ñun ñu xam ne du ñu muur suñu bopp yi yéen bu guddee te ay pël foto lañ fa nekkaloon bu guddee nu nii boo toogee nga ñu lay waar bu guddee xam nga ñuy def dañuy simeeku kooku na ma law bay kaay xool kaay xool ñii bu bëccëgee xam nga nu ñuy def marché bi bu ñuy sol seen kawas ma leen xool ni ay ree jàpp ma te bu guddee bu bu guddee ñu jaay seen bopp ñun nga xam ne du ñu muur ñun bu ñu xëyee dañuy liggéey ñoom bu guddee ñu jaay seen bopp bu bëccëgee nag ñëw muur ba daj yéen bu dee bor nekk am jëkkër am far yéen seen gàllal am jëkkër am far yéen loolu seen gàllal ñu sudu bitig la woon mooy yàlla bu bëri moo tax ñu génn pël futa yi yéen da ngeen mën a waat ne yéen yéen doom ba doo leen wax ko nëbb pël fuuta bu jëndee sénégalais rek ñàkk na pexe yéen bañoo ko marché yéen ñuy dugg marché xool leen ndax pël fuuta dina dina jënd sénégalais am du taxaw table Sénégal jënd si moom mo pël fuutaam lay jënd ñun. légui Sénégal doomu biral bu jog rek. yow soxla si nak bippi nga ñu bari crédit nak dé yow ci sénégalais ngay dugg bippi nga ñu bari crédit nak sénégalais dé xaaliss nga koy lebal <coughs> mu bañ la ko fay mais boko toñé nga doyal sik sik yow lan nga makissal lu mu daj ngéné yow yow yow ndéréñ bi si ñun ngay dugg. ñun au moins ñun sëgam ñun ay doomu biiral lañ ñun xam nañ suñu papa mais la plupart ci yéen ci ngeen juddoo du ngeen xam kan mooy seen papa yéen loolu moo leen gën a métti ñii dañuy ñuul ñuy xees kon bàyyi leen xaste xaste baaxul gis nga nit ki boo ko xasee mu xas la day métti xaste baaxul bàyyi leen li ngeen di mel yéen wax nañ leen dëgg yéen ci mbedd yi ngeen di nekk encombré mbedd yi pousse pousse yi euh, de gauche pousse pousse yi de droite ci trottoir yi ngeen di yi ngeen di jël seen pousse pousse yi teg ko ngeen ne yéen loolu kenn du ci wax. yéen yéenay ñan ba loolu kenn du ci wax loolu laay laajte yéen puus-puus yi fu ne lay dem ci mbedd fu ne lay nekk ci mbedd yi puus-puus ci trottoir yi fu nit ñi di dox sax duñ am fu ñu teg seen tànk gis nga dëgg ah, bu ñu ko gisee dañ koy wax te yàlla tax gis nga nit ki dangaa war a bëgg sa réew yéen ngeen bàyyi seen réew fële mënu leen kaa sax lijjanti ngeen ñëw ci réewu jàmbur buggu ñëw moom mënul nekk Sénégal le Sénégal c'est pour les Sénégalais yéen a ñuy dégg bu baax bu leen ñu yéen a ngi dégg comme c'est ñun ay doomu biiral la ñun au moins ñun xam nañ ku kan mooy suñu papa mais yéen yéen a gën a garaawle yéen fu ngeen dem. Naby Vision. sëgam ñun ay doomu biiral leen gis nga xasit du xaste bàyyi leen seen xasat yi ñaaw yi ngeen di xas ne ñi yéen a ngi dégg réew ngeen jabaate ngeen ñàkk ngeen a xam ko kon ñun dañoo fier ci lu ñu doon ñun senegal dañuy si fier gis nga sénégalais fépp fu mu dem day xalaat ñibbi si investir dëkk waaye yéen bu ngeen demee ci dëkk jàmbur da ngeen di dëkk. yéen a ngi dégg bu ngeen demee ci dëkk jàmbur barki yàlla da ngeen di dëkk bañ ne lànq ne du ngeen ñibbi yaa ngi yéen a ngi dégg mbedd yi ngeen encombré fu leen neex ngeen di tuur ndox yéen a ngi dégg fu leen neex ngeen di seen ndoxu fóot yi fu leen neex ngeen koy këpp seen pousse-pousse yi si trottoir yi ngeen koy teg kenn du mën a jàll kenn du mën a ñëw yéen a ngi dégg seen am na la plupart waxuma ñëpp nag mais la plupart boo leen rombee ci mbedd yi sax xale yi ndaw ndaw yi dañuy <coughs> langaamu sa yére pour nga sarax leen est-ce que loolu yoon la dañ waxante dëgg gis nga nit dëgg boo ko gisee da ngeen koy wax boutique yi la même chose boutique yi yéenay yéenay nekk di monter seeni prix yéen a ngi dégg di monter seeni prix ngeen ne déet ñun ñoom yéen yéen prix yi ngeen di monter ñun sénégalais moom la ñuy jënd mënuñoo ñàkk jënd parce que boutique yi yéen a ci nekk dëgg la am na ay biti Séné boutique yoo xam ne ay sénégalais ci nekk mais la plupart ci yéen seeni prix bopp ngeen di monter di ko imposer nit ñi ci réewu jàmbur ngeen ne yéen tamit loolu kenn du ko wax day waxante dëgg nag jeunes yi maçon yi. dañuy dem ci dañuy dem ci machon yi dañuy dem ci chantier yi dem ci chantier yi nañu waxante dëgg gis nga képp kuy dëgg sama vidéo nga dégg ko bu baax dañuy dem ci sancé yi bu bu ndereng bu ñëwee mu ne deux mille cinq cent sénégalais bi ne cinq mille euh, euh, bu ndereng bi la ñuy jël daaneel prix yëpp yàq lépp te ndereng xeebul dara dara dara ndereng yii di ñibbi Guinée laa wax de. xeebuñu cent franc parce que suñu cent franc fii moom mooy seen mille franc foofu noonu. kon day waxante dëgg day di ñëw ci réewu jàmbur ñu tax seen ñu teg seen prix ngeen ngeen yàq ko day waxante dëgg gis nga fii nii dëgg bu ah dëgg kaaneel rek kuñ ko suñu nga nga toxoñu cag-cag bi la même chose bu ni kii ne 3000 laay yóbbee wala kii ne 2500 laay yóbbee yéen bu ñu leen fayee 750 sax ngeen yóbbu ko yéen yéenay ñaan ba kenn du wax ak yéen xasit du xaste bàyyi leen seen xaste yu ñaaw yi ngeen di xaste bu ngeen nekkul ci yoon dañ leen di wax ne nekku leen ci yoon seen bitig yi bu ngeen fa duggee prix yu leen neex ngeen di fixé ngeen ne loolu la nit ñi di jënd al dinañ ko jënd parce ci bitig yi jaay day waxante dëgg kon nag ñun suñu réew ñun ñoo koy réglé comme te yéen bëggu leen Guinée ñun dañoo bëgg Sénégal suñu réew dañ ko bëgg dañ koy defar yaa ngi dégg dañuy bëgg suñu ñun dañoo bëgg seen comme te bëggu leen seen réew ngeen xiirtee seen réew ñëw suñu réew ngeen ñu duñu defar suñu réew suñu réew dañ koy da teg ci yoon yéen a ngi dégg sëgab yéen buggu leen seen réew yéen buggu leen Guinée buggaani leen Guinée affaire ethnocisme moo leen jëlee Guinée indileen fii bàyyi leen yëfu xeet xeet baaxul gis nga affaire waasoo mooy indi guerre civile ci dëkk bàyyi leen affaire xeet affaire waasoo te yéen dara yi da ngeen bugg affaire xeet affaire waasoo sama doom du sëyal ay ay ay ay nit ku ñuul yéen da ngeen naa ñuul ñun ay al ñun nit ñu ñuul yi loolu ngeen ñu xase te ñun dañoo fier ci suñu po yéen a ngi dégg yéen kenn xamul fan ngeen jugee yéen kenn xamul ban ban xeet ngeen. kenn xamul benn xeet ngeen chaque jour rek ngeen jàpp ñun sénégalais yi dañu saaga ñu traité di jàpp suñu kilifa diine yi loolu moo ma gën a naqari jàpp suñu kilifa diine yi taf di saaga est que loolu yoon la ngeen a yéen ko wax yëfi yooyu daf fiy jógee ci réew da ngeen naan réew te kenn ni ku leen ko wax ngeen jàpp saaga ndeyam bàyyi leen seen xase yi yéen bu leen buñ yéen boo leen ñu xasee ñu ñu xas leen wax gi jeex bu yéen yéen da am lu ngeen xasee nit bu leen ñu taxaw wax wax ju ñaaw de wax ju ñaaw na moom dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo yéen a ngi dégg bàyyi seen waxuy ñaaw yi seen waxuy réewande yi nii réew baaxul réew baaxul suñu réew la ñun ñoo ko moom dañ koy teg si yoon kon léegi lan moo ci nekk jara nekk fi chaque jour di wax du ñuy wax waxuy ñaaw jàpp suñu kilifa diine di saaga nañ waxante dëgg prix suñuy prix ñun sénégalais ñooy tag suñuy prix bu ngeen ko mënee jaay jaay bu ngeen ko mënee jaay ngeen nokk ci biti dem ñibbi seen yi dëkk yéen yéen yéen ngeen kenn du ko wax vous êtes kii laay laajte ah waay déedéet bàyyi leen xaste yu ñaaw yi nag bu ngeen ñu xasee ñu xas leen wax gi jeex wax yow. xaama ñëwaat si doom maraam yi ñoo xam ne doo léegi man maa jël place su tons dégg ngeen maa jël. day wone benn tay. yow yow yow katal sa nday yow katal sa nday fële di nga génn nday Sénégal passeport Sénégal bi nga tukkee sa dina ñaf ndayam retiré ko. yow ngay doomaraam sa kanam gu xonk gi da ngay jaay baan ñooy saaga sa nday ba sa xol bi dagg si suuf doomaraam ndare ngu xaraamata njaay yow war ngaa toog extérieur kéeg passeport Sénégal di saaga Sénégal yéen ñëpp doxaan seen day Sénégal yëpp boycotté leen bitiku ndara yi ngeen di dem bi jëndee Auchan Auchan léegi fii lay fayee impôt weer deewee dem leen jëndi def seen boutique ngeen kat nday bàyyi ñoom seen boutique yi dañoo toj seen coot nday yéen doo ay sénégalais doo leen a doon ay sénégalais da bon dem Guinée ñëpp a ngi seen dëkk yéen amoo leen xanaa amoo leen di ngeen nday jom de ëpp leen seen nday génn dëkk bi fii koo fi saaga day ubbi sa du fa nday matin midi soir voilà doomu toj coot nday mi ngeen doon fii koo leen fi saa ngi mu doxaan seen nday yéen ñëpp. salut ça va nuyu naa leen yéen Guinée les peul guinéens sont damay préciser je pèse bien mes mots yéen ñun sénégalais yi ñoo leen mën a jàngal ci nation parce que ñun suñu réew mosul am coup d'état suñu réew musul am euh, guerre civile yaa ngi dégg yow xale bu jigéen boobu di wax nga laxasoo sa musur noonu. ngay mel ni jaan ñun Sénégal mosul am guerre civile y ngi dégg euh, affaire xeet affaire xam nga yéen daf leen neex guinéen les pël guinéens je pèse bien mes mots affaire waaso affaire xeet daf leen ba a neex yéen dañuy toog carrément ne yéen kenn du leen rax yaa ngi ñun ñun sénégalais ñun ñoo jàngal militaire Sénégal gii lañ leen ñun affaire nation ñun ñoo leen koy jàngal mais pas vous yéen da ngeen a mës a toog yéen ñi dëkk di lii samay commentaire di ci dugg da ngeen a mës a dégg benn pël waxuma la guinéen de benn pëlu guinéen bu nekk général wala benn pëlu guinéen bu nekk capitaine wala benn pëlu guinéen bu nekk président ngeen wax ma ko seetlu dalee lu ko dal seetlu dalee jógewul Guinée ñëw ndax lan dafa daw ñëw pël bu am fit bëriwul.

bi ñu waxee seetlu ngeen benn affaire bu ñu waxee affaire carte séjour ba léegi ngeen nekk di pétard di wax di gauche au droite di wax de gauche au droite suñu réew ñoo ko moom dañ koy régler am nañ ci droit non ñun ñëw moom suñu réew dañ koy régler yéen a ngi dégg damaa bëgg ngeen régler ngeen lem ko ba mu ron ngeen toog suñu réew la dañ koy régler étranger bu fi mënti ñëw day fay carte séjour ak foo mënti jóge nag. bu dee yéen Guinée yi yéen a ñu bëgg a lijjanti loolu dina leer dina xa yéen pëlu Guinée yi a ñu bëgg a lijjanti loolu dina leer yéen a ngi bëgg a rakkaaju nag yéen kenn waxul leen qu'est-ce sa se passe yéen a ñu jàngal affaire nation ñun suñu réew musul am mosul am guerre civile te ñun ñun ñun affaire u jiitaluñ affaire communauté ñun dañoo jiital Sénégal avant tout ñun jiitaluñ affaire u xeet yaa ngi dégg bu ñu jiitaloon affaire xeet Senghor duñu jiite bu ñu jiitaloon affaire u xeet Abdou Diouf duñu jiite Ablaye Wade kazalika Macky Sall kazalika Diomaye kasalika kon dama bëgg ngeen régler parce que yéen affaire u xeet affaire u xeet ethnicisme moo leen jëlee Guinée indi leen fii nii damaa bëgg ngeen déglu ma bu baax a baax a baax ngeen xam lu may wax yéen dañu naa mun a jàngal affaire nation ngeen di wax di duul di fen dafa li ngeen di wax ñun li ngeen di wax day dugg fii jaaral fa ca des parce que ñun munoo leen ñu lijjanti ñun suñu réew avant tout ñun jiitaluñ affaire u xeet affaire xeet bobu nag ngeen bëgg indi fi bëgg ñoo diviser pël yu nekk Sénégal pël yu Sénégal pël yu nekk Sénégal la bëgg ñu def jël ndox def ko seen bopp parce que pël yu nekk Guinée dañoo ñëw fi bëgg ñoo diviser te loolu mënul nekk mënoo la ñu diviser ñun Sénégal lañ jiital ñun intérêt Sénégal lañ jiital mais pas intérêt communauté déedéet dama bëgg ngeen bàyyi seen affaire xeet yooyu. Naby Vision affaire xeetoo yooyu. sénégalais lay waxal gis nga lii gis nga lii raam ci ñag ba la jëm bu ñu toogee di ko seetaan wallaahi dina fa am kër te duñ ko fa mën a génnee parce que les peul guinéens là ils commencent à dépasser les bornes ñu ne ñu jàngal affaire nation ñun suñu réew gis nga vote normal moo fi am ñu fal suñu président mosul am coup d'état te yéen seen réew coup d'état chaque année saa yu président waree toog coup d'état day am seetlu dalee tapet moo tax mu jugee mu jugee Guinée daaw si fii ñoo toog fii nii ndaxte dafa dé dafa détourné fond boo xamante ne ñu ngi koy topp depuis temps ko Alpha Condé ba léegi. kon damaa bëgg ngeen régler ñun moomu la ñu a ngi dégg ñun ñoo leen mën a littali seen histoire pas ñun pas yéen yéen a ñun suñu maam duñ ñëw tuur seen deret lijjanti suñu réew ba suñu réew taxaw ngeen ñëw bugg ñëw fonton yéen a ngi dégg xam nga lu ma bëgg ngeen lem ko ba mu ron yow xale bu jigéen bi yaay waxal nga nekk foofu di daj daj sa kanam googu ngay mel ngay mel ni tamaate fël-fël régler leen nag mënoo leen ñoo jàngal nation yéen affaire xeet moo leen sonal affaire xeet moo leen sonal moo tax Guinée mënul fexe ba avancer parce que affaire ethnicisme ay ay euh, malenke du ma jiite ay susu du ma jiite yéen yéenay ñan yenn ñan mënu leen jiital seen ethnie réew avant tout seen seen intérêt réew du moins avant tout gis nga patriote dëgg dëgg dëgg intérêt réewam lañ di ko seet mais pas affaire communité communauté affaire u xeet affaire etni day tax réew dellu ginnaaw wàññi leen ni ngeen mel nag pareeguma ci yéen ku fi kenn keneen ku fi génn wax wax wax nañ la ñuus yéen da ngeen réew